ngir ñu mën a dellu waxtaani maam Cheikh Ibrahima Fall ndax jàmm ñu bari Cheikh Ibra ump na leen te it coow li coow li Cheikh Ibra Fall la li yëngu lépp Cheikh Ibra Fall la koy yëngal dëgg la de mooy baabul muridiin mooy baabu tarixati Cheikh Ibra Fall mooy baabul jannati Cheikh Ibra Fall mooy babil ulum lii lépp mooma waaye damay wax ni Cheikh Ibra Fall ghaniyun ani taarif fardu alam la ku ñëpp xam la xami cosaanam xami maamam xam fi mu bokk muy dameel di teeñ moom Cheikh Ibra Fall waaye góor dëgg bàyyu làll Fall dëgg la de Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall doy na rek muy donay Amari Ngoone Sobel Fall Cheikh Ibra Fall doy na sëkk muy donay dameel ak te ñi ci Kajoor yëpp ba ci dameel maa joojo Cheikh Ibra Fall moo donn yetu nguur waaye sànni ko wuti ci Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul mi nga xam ne moo jëriñ jàmm ñi tey ak ëllëg mm-hmm. Sëriñ Tuubaa day jote woon na bay bëgg a dem takkoon na tuuti kon sëriñ bi lëm biram ba kenn du mos ci baatinam li dul ci ba ni taxee Cheikh Rafal dëju jatu bu ñu nee tëb leen moom fekk na sorket jot na bu yàgg Cheikh Rafal mooy koo xam ni maa ngi lay delloo ci gis bul murit tegtaloo waxam moom maam Cheikh Ibrahima Fall door a barak li ko rek dikk ci li nga ma laaj ci ndogu yi Baay Faal yi jëf café gii joxe ci mbedd mi ak lu ko waral ak coow li innama nut'imukum li wajhi llaahi laa nuriidu minkum jazaa'an wala shukura joxe rek ngir jëmmi yàlla ak di benn rek ngir sàkku jëmmi yàlla ak cant dëgg na xaqiqatu shukri da daa man alima shuhuduna min sil jalali niama ak cant dëgg-dëgg mooy xam ne la yàlla defal nga delluwaat ko ci suñu borom Cheikh Rafal la Serigne Touba woolu weeru koor ne ko damay séntu gan bëgg nga nga nga terale ma ko yow Cheikh Rafal Cheikh Rafal bàyyi ko kër seex ànd ak dongo yi si kar ji bi ñëw kar gu mag fekk fi Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul yaakaari jàmm ñi sëriñ bi wax moom nam faal mu ne ko nam mbakke nam mu ne ko nam mu ne ko damay séntu gan te bëgg gan gi nga taral ma ko maam Cheikh Ibra mu ngi mel ni gis ak teg dënd ba ci suuf nangu wuti sikki nangu wuti xool Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul yaakaari jàmm yi mu waxtaan ak moom ba jotaay ba jeex Cheikh Rafal dem ndax li liñ tudde albuqatul mubaaraka bëggut yëkki kàddam tontu ci Cheikhul Xadim bàyyi ba jéggi pàkk bi pàkk bu sell bi ne yaaram mu ne Fall mu ne ko ah ana lu ko baax ki wax mu ne ko ko baax ki nee na day séentu gan bëggoon nga la ko ko mu ne ko tey la lan mu ne ko tey la ñaar fukki fan ci baraxlu mu ne ko ah ana ngeen jàpp lan am ñu bari jàpp ne ay gani naar lay wax bàyyi gani sirif ba nee ne gan kenn ku ne wax la nga xalaat Cheikh Rafal ne leen Serigne Touba weeru koor lay wax gan gi la bëgg ma terle ko ko daan na ko yaram bindal ma tànk mu bind ta tànk mu bind taa tombe ak keef mu ne ko adat ko mu adat ko mu ëpp mu ne ko wàññi ko bind ko taatu dara muy taa Cheikh Rafal bind ko muy taa ak kaaf mu ne ko waaw koy yaaram ñaar fukk ak juróom la tey ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci baraxlu ne ko ay ndogu la may waaj loo ndogu yooyu képp koo xam ne def nga ci sab dërëm danaa la war loolu defar sa mbir àdduna ak àllaaxira loolu moo waral moo waral Baay Faal yi di joxe ndogu ngir berndeel jaamu yàlla yi ci ndogu lii moo waral Baay Faal di jëf ay ndogu di ko joxe ngir jëmm yàlla waaye nag xam naa ni bu waxtaan wi dellusee danañ dikk ci ana lu ko waral ñu koy def ba mu baax di ko sellal di ko jox jaami yàlla yi waaye di ko jox seeni sang muy waa kër Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul Cheikh moo xam dëggi-dëggi diine dégg mu wax ni qaala cheikhu al imaamu nahji cheikhil humaami al maftuux al xikam Cheikh Ibra moo tëjji bunti xam-xam yi moom dong moo xam yàlla al qaidil moo wammat murit yi waaye teg leen ci xam-xamu xikam ak xam yàlla al mustamsiku bi xabli sihil mbakki yi moom dong moo ngoy dëgg ci buum ak Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul yaakaari jàmm yi alladi man iqtada bihi faqad hada wa man rahima anhu faqad rada Cheikh Fall nee na Sëriñ Tuubaa mii ma ngoy ci moom ku jàpp ci moom mucc nga àdduna ak àllaaxira alladi istamsaka bi sunnati nabil makki sama sëriñ boobu may wax moom itam moo jàpp ci buumuk rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam Cheikh nee na fii laa jaar sukk ci kanamam ba liggéey ba am ngërëmul yàlla di jëf di ko jox aw ma ci aduna dara moo ma ci bopp dara lu ma jur jox ko lu ma am jox ko lu ma liggéey jox ko yaakaar ci lan hudan wa nuurun wa wa baraka faja ani fi maddi faxri murdikatin loolee Cheikh Rofal doon liggéey ci kër ci Amadou Bamba Xaadimu Rasuul ba am li mu am tabaarakallaahu euh, gis nga loolu la doon liggéeyal ci ku tedd ki euh, Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul euh, dama dégg sànq nga wax benn wax mu jaaxal ma lool te ñu ngi ci gëstu ba tey génneguñ ci yoon woowu waaye léeg-léeg di nga toog wax benn xasida ñu ne la lii kat ku tedd ma du Bamba Xaadim Rasul moo ko bind. Hmm. Euh, yàgg naa toog maa ngi wër ba tey euh, mais euh, du ma gis tey Baye Fall di zikar ni Cheikh Ibra nee na bëggoon naa xam ndax maam Cheikh Ibrahima Fall bind na bàyyi fi wala bindul bàyyi fi. Cheikh Ibra bind na. Cheikh Ibra Fall moo liggéey xasida guñ tudde Jazbul Murid mu ngi ko liggéey Ganjool. xasida googu lañ tudde jësbul murit moom lañ xam ci lu Cheikh Rafal bind waaye wér na cëng ne alxuraan fekk na li tax mu di ko bind sabab bi mooy te it xam naa ne du sori quatre-vingt-quinze mille huit cent quatre-vingt-quinze mille huit cent quatre-vingt-seize bi Cheikh Amadou géej ci géej gi Cheikh Rafal mbooloo mi dar ko ci ndar muy liggéey bayre bi topp ko bu tàkkusaan jotee mu génn ak piis may luusam ñañ la di daanu ca gannaaw dexeñ ci kii bu doxee ci mbedd ndar yi mbooloo mi topp ko ba yàgg nag mu indi jalousie digganteem ak tubaab bi loolu moo waral ñu jëli Cheikh Ibra biir ndar yóbbu ko nag fa ñuy wax jaara waaye Cheikh ku bari woon ay kër la ci ndar ci teen jigéen ak gett ndar am fa ay boutique di liggéey di jox Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul bi mu jàllee ci gétti ndar jóge fa dem ceen jigéen am fa ab diir ca la jàll gànjool gànjool nag mu fekk fa ñii ma lay bëgg a wax mayaari jum ak demb yëmbu jóob mayaari jum ak demb yëmbu jóob ñoo doon diingat Cheikh Ibrahima Fall la bawul muridiin waaye góor gi maa Fall ñang ak Ibrahima soggu taal gëm Cheikh Ibra te it ilimaani jàkk lañu woon boroomi xam-xam lañu woon daan dund seen diine gis Cheikh Ibra ci aw doxinam ak sell gi ak baax gi ak xam xam-xam bi ñooñu far jébbalu ci moom topp ñu moom di Baay Fall ah mayaari jum ak dëmb yëmbu jóob di di di di dingat ñooñu nag nan leen ngeen di fóore di maani jàkka topp ki ngeen xam ne du julli du woor yéen def ngeen jombe di leen jëm tuuma rek di leen jëm tuuma rek Cheikh Rafal na cës xalimaam daa ne ayaama yaari jum wa dem ba yem fa quuma wa taxalla izzatan li waj illaahi fanaa yanaalu izzatun indallaahi illaa bi tarki izzatin lillaahi ma yaari jum ak demb ba yem mu jóg fa xuumaa jóg leen wa taxalla izzatan bàyyi leen seen rëy gi ngeen nekkee jóg wuti ngërëmul yàlla falaa yanaalu izzatun indallaahi kenn du am tedd nga fa yàlla illaa bi tarki izzatin lillaahi lu dul da ngaa bàyyi tedd ngay adduna gi ngir yàlla falaa yunaalu jamaalun indallaahi illaa bi tarki jamaalin indallaahi kenn amub taar fa yàlla loolu da ngaa bàyyi taaru adduna bii ngir yàlla falaa yunaalu darajatun indallaahi illaa bi tarki darajati dunya lillaahi kenn du am daraja fa sun borom loolu da ngaa bàyyi daraja yi yi ngir yàlla falaa yunaalu waladun indallaahi illaa bi tarki waladin lillaahi kenn du am doom fa yàlla loolu da ngaa bàyyi doomu adduna yi ngir yàlla di tontu rek di leen ko ba téere ba mat téere ba moom la tudde Jisbul Murid xanaa xamoo ne Mohamed Cheikh Ibra Fall jant la lamp buy xuy di takk tey leeral jamono ba tax ñu di ko woowee lamp Cheikh Ibra mooy sëmsu sumuusi Cheikh Ibra mooy rësu ruusi Cheikh Ibra mooy xeyrul anisi maa ngi lay delloo ci mbindum Serigne Touba Serigne bi daa wax ci xuqani yaxwi diyaan ka daw i shamsi haysu naha yaxda biha kullu saxsin dissi naaraati yaxiibu an kulli kawnin lil mukawini sa nuurin azimin wa sirrin min min xuyubaati ulaika alqawmu la yasqa jalisuhumu is yaksibuna almuridina saadaati te it sëriñ soosu dafa wax ne moom sëriñ tubaa maa ngi ñëw Cheikh Ibra de Cheikh Ibra Fall jant la sëriñ tubaa dani yamxu an alqalbi reynan qad yudannisuhu mahwal muqassil ansaw bi najaasaati nee na sëriñ bu mat sëriñ ni kat bu mën a fóot di fóoti sër yu tilim ne ne sëriñ mën a fóoti ab taalibeem bu mu set ci bàkkaar waaye koy wax sëriñ Tuubaa mu ne sëriñ bi may wax day làq leer yaxwi diyaa an ka daw isam si xay su naxaa day làq leer goo xam ne day mel ni jant bi fu mu jëm lekk leeram ngay laas yaxibu an kulli kawnin lil mukawini sa nuurin wa nuurin afimin wa sirin nee na ñooñu dañuy duy ëffees leer waaye ku dikk dikk seen ndab ñu sotti la leer Cheikh Rafal mooy tontu ci sama yaa ma laaj ndax bind na sëñ Tuubaa wax lool ci xoqa samsu boobu sëriñ Tuubaa tudd yax wi diyaa an ka dew is samsi Cheikh Rafal nee na li anna salaata ida fatal muxtaaru Cheikh Rafal lay wax ida fatal muxtaaru faatal fadlu wa baqa alqada bi ay waqtin siita serofal nee na julli bu moxtaar ma woye faya ca des waaye waxtu bu mu la neex ngay faye daan ni li anna shams isa faata xarsuha faatal wisaalu biha serofal nee na ab jant bu ceññeer ga demee ceññeeruk jant bu demee ba ngoon jant suux nee na su boobaa ceññeer ga wéy na timis dem na nee na su boobaa faye sës lay junju dem na maa ngi ñëw. ayca ma daaneel. Mm-hmm. daan ne. Cheikh Rofal nee na. wa samsul ardi tatlu min aflakin wa tasiru fi buruji samaa yi nee na jant yi ngeen di gis muy environnement bi ñuy dund li ci nekk ci ay xeeti planète ak seeni bidéew ak astri yi nee na dañuy dox dañuy dox waaye am na ligne de conduite yi ñuy jaar la shamsu yanbahi laha an tudrikal qamar wala laylu saabiqu naaru kullun fi falakin yasbahun Cheikh Rafal nee na jant boobu ci la ñuy natt julli waaye man nee na sëriñ bi may wax mooy jant boo xam ne du fay ana Cheikh Rafal loo bëgg wax mu ne wa shamsullahi tatlu minallahi wa tasiru fawqa al ardi illa bi iznihi wa huwa cheikhun nee na jant bi may wax mooy jant ba fenk ci yàlla te muy sëriñ bu mat sëriñ ay ca mu ngi noonu daa bi mam sey Ndiaye la Modou Mbeng nga xam naa ne fi mu toll nii amatul sago xaadim aan amatul sago Modou aan amatul sago ne ne xaaral ma daal di la waaye daal maam Cheikh a ngoog bu ndeelu seen ak faaw ñu laaj ko